waaw maa ngi leen di fay di nuyu mbokk internet yi seen Sénégal yëpp. bu ñu la wax euh, lan nga fi wut parce que ñaari sëriñ la ñuy kii te mbaroo di nga bokk tey lan nga gisee déjà carrément bokkoo ci nan nga apprécié. non nee la tey jii lii du du du du feetu Marodi li feetu cinéma sénégalais la. donc tey ji je suis ici en tant que acteur bien vrai aussi c' est une mu nekk Marodi mooy organiser fête bu mel nii donc carrément di nekk série bu nice boo xam ne sénégalais yëpp ñoo ko bëgg aussi. donc donc fierté laay am tey jii du ñoo ngi gis samay mbokk acteur wala ay actrice aussi yoo xam ne tey jii def nañ projet bu am solo ba tey jii mu nekk à terme te ñu si benn problème donc day ñëw nii pour féliciter leen ba pare rafetlu liggéey buñ ñu jot a def mais yow gisoo dañu ci benn série boo boo joué woon temps yële ak euh, mooy série. li ñu euh, yoon. yoon yoon nga joué ci mais depuis loo gisaatuñu la. waaw d'accord parce que xam nga xam nga. ñun ay ay ay acteurs lañ ñun ay acteurs lañu et tey jii xam nga suñu carrière àpp nañ ko fii ak 60 ans wala 70 ans donc tey jii yàkkamtiwuñu dara si lu ñuy def donc bu ñu gisee projet boo xam ne vraiment on sait que ça peut apporter quelque la carrière on allah mais tey jii nekkuñu si dina dynamique bu lancé wu dans tout tout ce qui passe wala lépp lu ñëw rek ñu tànnee ko si non non. yeneen yow da nga trop fidèle à Mbarodi yeneen maison de production yi dañ ñun on est des acteurs on est sénégalais ñun suñu carrière ñun cinéma sénégalais la ñuy xeexal ñu lu ñu sax suñu suñu bopp ñun cinéma sénégalais lañ bëgg mu exceller yegg si yeneen niveau donc bu jaaree ñu jaar si Marodi wala ñu jaar si keneen fu mu war a aw rek dinañ fa aw incha allah. pour gis nañ ko waaw c'est vrai dëgg la dëgg mais dëgg li mu la daal lañu am am na am na yoon bu ñu jël dessiné ko bëgg ci topp donc. lu ñu gis ni ja yoon na rek yoon la rek ñu def ko dinañ ko def incha allah pour la carrière képp kuy maison de production su ma gisee projet bu ma intéressé boo xam ne je sais que mën na ma booster vers l'avant dinaa ko def incha allah de rien